waaw kay mbay <laughs> sama vidéo bii nag dafa ànd ak caay-caay <laughs> gis nga li ma ci sol nii mu xaw a été wu gars yi nag été neex na nag de <laughs> góor ñi del ànd seen soxna yi fi kenn ay Mbodia Mbaye nag lu nga wax lii xanaa gis ko nag ah neex na de da fi kenn bi nag da leen dundaloo jeeg ji jéggi essaye leen fii instant bii nii ku ci yóbbul vacances nga dem fi kenn ñoom rak rose ci palaas baax yi xoolal mere sa jëkkër mere ko <laughs> fasal sa kanam fi kenn neex na nag dugg ci biir piscine bi oxo lu neex a neex daal dem na kuubul nag lu jox la sàmbur boo xam ni dañ koy kilim ba mu set nga sol sa robe pii <laughs> daal dox ndànk nag kilim ko ba mu sedd daagu ndànk ba ci biir piscine bi laa waxuma ne dara xale bu ndaw waxuma ku amul jëkkër jeeg ji sëy laa ni ñam weekend ku ñu weekend lu ci vacances yi xoolal mereen jëkkër <laughs> ku ñu yóbbuwul weekend mere su ngeen xamul lu ci weekend man maa ngi ñam yow moo tax ma ne xaaral ma daw ndax neexaay ba ëpp na <laughs> nga dalaas nag dem ci biir piscine bi nag ànd ak mbaay nag mu def may de pemp toog <laughs> tooj say ween de pees ànd sa jëkkër mu leewu ni ci biir ndox mi nii daan na nii <laughs> de wóor na yàlla ñàkk ma fayda fi kenn neex na xoola balance la nii ngay fee dajeeg sa waay ci biir piscine bi moo weekend lu ko waay jënde jaar na ko xale yi jeeg ji dem leen wax seen jëkkër yi ñi seen jëkkër yi jógee Europe ñëw fi balaa ñuy ñibbi ànd leen ak ñoom weekend ah weekend dara la de nekk fa vendredi samedi dimanche si ngoon wala lundi ci suba <laughs> sooy dox sax di génn dangay ngay da ngay dox di gees hôtel bi <laughs> di gees hôtel bi nii di xool mu neex peeru meex boo xam ni xool dañ koy dundal ndekete nag xool day dund de coow li coow li di leen fekkee nag di wéet waxuma dara waaye sa maayin bi ci bopp muy deesi yéen ñi xam sax da ngeen tere say carrément su ngeen fekkee ni jowoon nii seen seen xel mi day ñëw seen maayin bi muy ñëw parce que day yokk amour sa ca day tax mer moo jàppoon sa kër ba énervé nga mën a delluwaat sa kër sa yar sa jëkkër ci ay mbooja la ay wax ci weekend xanaa neex xam naa dinañu meer bi ñàkk na fayda musumaa ñàkk fayda eh neex la def jeeg su ngeen bëggee ñu yóbbu leen suñu leen nanguto yóbbu fas seen seen karam rab dikkale leen seen jëkkër ñu yóbbu leen <laughs> mere leen seen jëkkër ñu yóbbu leen weekend dunduloo leen lu neex ma classe gi ne lu noo sëy ba naax xamuñu fi kenn xamuñu dem ci palaas yi di dundal seen xol yi restaurant yi nga dem faak fi kenn sa jëkkër dundu mbégte mi xamuñu ko maa ñëpp a yem am nañu ko xamul mooy man moo tax moom fa yóbboo dama bëgg a génnaat pour ñibbisi mais weekend day neexal xol weekend day naatal xol jéggi dee dem di beesali <laughs> ay waay waay boo jëm baa nag ubbi nga sunu xel nag eh ak seen xol day leen ànd ak seen jëkkër yi waxuma dem rek yenn ñëw de man kenn du ma dugal ah ci lu mel ni hôtel boo ah hôtel bu neex piscine yaag népp ndefa samburi seddu guyu nga ma fay yendoo di ma ñibbi si waatal ñibbi siwu ma ma ci hôtel ba diibu déw ma <laughs> déw ma laa ilaaha illallaa ajuma ngay dem laal samedi laal dimanche bés dees xoolal soo génn na la piscine bi génne wala xoolal nga dem ca restaurant ba lekki ba suur wala nga tëdd fu nga tëdd lépp fekk la fa yow daal muuroo dara bu weex bi rek toog tas say rek tëmbal lépp blaak boo jógee def sa robe dentelle bu toog bu yaraax tooj say ween bàggante ci néeg bi fa gàtt fa xasaat ba mu def sa pompe sambul kilim bi gën a sedd gën a neex waaye yow waaye lii lu ko gën a neex yow lii di na mbëggeel nag lii di yokku amul nga nekk ko ko bëgg sa t'aime beaucoup mu naan la moi aussi nii nga xool di bëgg sa xool bi di neex nga la ko soo dara bi rek saa sol dara nag man fi kenn bëgguma sol yére xanaa boo waree génn dem ci piscine bi wala nga am loo bëgg ànd ak sa waay doxantu tuuti lekki ko bu lool loolu neel ci biir piscine bi ci biir néeg bi kirim bi jaar fu ne di sedd di neexee fu nga raaj <laughs> boo tourné côté bii ban ni neex na nga tourné ba ca des eh weekend da yokku caga barke Seex Ahmadu Bamba yéen jeeg ji sëy laa leen wax de couple yi day leen ñam weekend ku ci yóbbu ci balaa balaa nawet bi di jeex vacances balaa muy jeex mereel sa jëkkër bu la neexalee ba son nee ko man place rek danga may yóbbu weekend ma def vendredi samedi dimanche di nga mel ni gumba guñu abali bët fu la neex ngay xool <laughs> balaa ñu koy nangu <laughs> sama classe nga xam-xamuñu yooyu nga yóbbu leen fa demuma damay fanaan fanaan naat yendu te duma génn ci biir ah xoolal yow dee ma ko jox rek ma la koy jox nga ma koy jox da jógee balaa mën a feeñ nga dem fi kenn nekk da jógee balaa neex nga dem fi kenn xale yi miin leen kenn xale yi des fois bu ngeen faree sax seen kuu yéen jéeg xam ne seen jëkkër jékkuwul xoolal nee ko papa mu laa nga ko nañ ànd moo tax ma sol tey sama robb bii tëmbal lii mu fal féex fu ne ma balaat sama xel nekk loolu ci weekend ndax nag neex na san ah. sans farce nag neex na fas leen seen kanam bañ yóbbu leen dem leen vendredi samedi dimanche bu leen kenn yóbbu samedi di leen xuuxal vendredi ngeen di dem fanaan ko dëbb néeg bi mu xëy mokk ci ci samedi bi ngeen rëbëjëwaat ko ci bëccëg gi soo ko ndékki ji soo ko añ soo ko reer nekk ca mu la koy jox nga ko koy jox bu ngeen sonnee dem ca piscine ba jaaxaan na ca ca affaire yooyu noonu nu mu tuddati <laughs> lu gudd loolu. ah li ngay tëdd ni jàkkaarloo géej gi ay waaye law sàmm ndeke lu neexee nii am na ci réew mi te <laughs> banaa na papa kii ba lu gudd loolu nga caaxaan aj say tànk nag sa waay tëdd ni nga tëdd nii ngeen di waxtaan tubaab bi xam na lu neex nag tubaab xam na lu neex nag par barke Seydina Muhammad ñam leen jikkar man Mbodia Mbaye maa ko sàcc ci wéewu bay pour wax leen ko pour ngeen dem ku ci yóbbuwul fi kenn nag lu leer laa lay wax bu xool bul dem meree sa jëkkër ba mu yóbbu la weekend su ko mënul bul mës a wàcc nee ko weekend rek nee ma weekend bu dul man jëw ma neex na am na maanaa am na solo te jekki yëpp na kóobu nag laa wax kóobu li nan leen ciy yóbbu bu leen nangu ku leen di téye ci kër yi te du leen ñamal weekend ñam leen ku muy rag rose muy hôtel bu mu mën di doon am piscine neex seddu guy ak kilim nga nekk ak sa ko ngeen ne ci mu la koy jox nga ko koy jox néeg di neex dem leen fi kenn Mbodj Aly wax lii di xaar